conférence de presse bi yéen a fi nekk à l'honneur aujourd'hui parce que conférence de presse la yéen a ko animé ñu ngi kontaan ci yéen lool ci seen taxawaay saa yu ko lanaa soxlaa ngeen teew wane ci Pastef bu am solo ñu ngi tamit profité ci occasion bi ci turu directeur général pour remercier képp koo xam ne teew nga fi tey muy directeur muy conseil spéciaux ñu personnel lu LONASE nga xam ne tey taxaw nañu fi taxaw bu rafet di leen xamal ne jeu bi tudd yoonu Qatar LONASE da ko lancé ci initiative directeur général LONASE Lat Diop li taxoon nag ñu lancé ko mooy que LONASE partenaire historique la ci lion yi euh, presque avant même 89 la LONASE di accompagné les Lions du football maa ngi fàttaliku Euh, premier caru Lions yi Lonase a ko jëndoon daan transporter joueurs yi c' était vers les années 89 pour wax leen ne depuis boobu ba léegi Lonase dafa mos a gëm équipe nationale de football di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom da yàlla def li ñuy def nii ñu gagné coupe d' Afrique mu nekk loo xam ne nag mbégte la parce que dañoo misé ci loo xam ne wax dëgg na yàlla tey gis nañu résultat yi ba tax na ne. ba ñu ci processus boobu ñuy accompagner équipe nationale de football dafa am ñoo xam ne dañoo wóolu ñoo tax ba ñu mën a def ay jumtuwaay di ko teg di ko soutenir di ko jàppale équipe nationale de football. ñooñu noonu mooy suñuy parieur parieurs yi dañoo am fidélité ci LONASE gëm ko am confiance am kóolute ci LONASE depuis boobu ba léegi 66 ba tey xam ngeen ay ati at yu bare la plus de 50 ans. alors parieur yooyu directeur général nag nee woon ñii comme ñu ngi ànd ak bi léegi te équipe nationale de football aussi tey qualifié na coupe du monde war dem Qatar dañ leen jox defaral benn récompense récompense boobu moo indi jeu bi jeu concours bi mu yoonu Qatar jeu bi nag comme ni ko madame Ndaw waxee ci ñaari réseau Lonase point bet muy réseau réseau digital mu nga cee jouer fay boo jouer 5000 francs rek participer directement ci jeu concours bi ou bien nga dem si kiosque yi fi nekk mooy masse commune internationale ci réseau physique maanaam kiosque yi ak PLR yi boo ci jouer lu toll ci 2000 francs mën a bokk ci jeu bi mais bu boobaa da ngay jël sa ticket dem. scanné ko ci benn QR code nga xam ne kiosque boo dem Lonase rek fekk ko ba bu ko defee nga dugg ci biir application bi mën a enregistré sa bopp boo enregistré jot benn message fu lay xamal ne 2000 yi nga joué léegi bokk nga ci ci concours bi loolu mooy mécanisme bi léegi nag bu ko defee loolu noonu ñuy jox suñu parieur dana dana leen permettre ñu dem Qatar Lonase moo leen di yóbbu billet aller retour bu ñu fa àggee aussi bu ñuy déplacé wu frais d'hôtel hébergement Lonase moo leen di jël en charge tant que équipe nationale de football mu ngi foofu kon nag ñu ñaan équipe kon équipe nationale de football bi ba final bu ko defee parieurs yi mën faa toog ba ci jamono jooju déplacement yi ñuy def aussi ci biir di dem di dem stade Lonase moo koy jël en charge kon xam ngeen ne cadeau bu am solo la boo xam ne tey ñu ngi koy jagleel suñu parieur waaw ci biir wax jooju ci biir question yi pardon mu amoon seen benn naatangoo journaliste wax ni Lonase mu ngi liggéey ak ay partenaires di xalaat ay parieur waaw Lonase ana lu mu réserver presse bi ñu ne leen ci suñu biir xalaat Lonase dafa am procédure boo lancé jeu concours dafay am objet boo xam ne ci ngay liggéey liggéey ba mooy lañ leen e-, expliquer sànq processus boobu bu ko defee nag yéen nga xam ne yéenay suñuy partenaire bu fekkente ne namm ngeen bungee tamit processus bi da ngeen di def demande bu ko defee directeur général saytu ko ñu xool nu leen di jàppale ci loolu beneen bi aussi mooy question bu ñu mujj posé mooy ci lu tax est-ce que ci réseau digital bi rek la ñuy joué pour mën a bokk ci jeu concours ñu xamal ne leen ne ci ñaari réseau yëpp la ñii nekk digital mën nañoo joue mais seen minimum 5000 francs junni la ñuy la ñuy mën a joué pour mën a bokk ci concours bi ñi nekk ci réseau physique bi minimum mille francs la ñuy mën a joué pour mën a bokk ci concours bi te loolu day wane ne dafa am lu ñuy naan ci tubaab discrimination positive parce que ñi nekkoon ci physique ba ñu ñuy gunge depuis ay at yi at yi at digital bi ba mu ñëwee yàggut bu ko defee pour aussi ñu permettre leen ñu bokk ci affaire bi en masse ba pare xaw leen a beral loxo tuuti moo tax ñu wàccee affaire bi def ko 2000 donc loolu moo newoon defe naa résumé. fédération nan la la bi. Euh, nan la waaw euh, mu may fàttali benn question bu am solo mooy LONASE aussi xam ngeen ne dañuy jàppale fédération de football ci ay subvention ci ay accompagnement ci ay prime d'objectif ñu ngi ci lool mais beneen wàll bi nga xam ne Senghor waxoon na ko sànq mooy aussi équipe ba aussi faw ñu gunge leen ci ay supporters yan boo leen fàttalee ko bu baax ci finalu Cameroun bi LONASE loué na fii avion boo xam ne dafa yóbbu ay supporters loolu yëpp pour jàppale équipe nationale de football bii aussi occasion la pour ñu au la de jeu bi ngay gagné au-delà de prise en charge bi beneen idée forte bi ci nekk mooy aussi dañuy yokk dañuy accompagner équipe nationale ci supporters yi nga xam ne dinañ leen mën a jàppale foofu muy Qatar. waaw kooku moo newoon résumé boo xam ne bëggoon naa ko def en wolof allez léegi je vous en rappelle